waaw ñoo dañuy wàññi de dañuy wàññi poids moo ko ban équipe la nag fekke l'heure quinze heures vingt-sept gis ngeen gars yi wàññi bi la ban équipe la ban région gars yi ngi ma todd dañuy wàññi de <laughs> gars yi de ñoo ngay de waaw